tala mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru sax Ramadan di ci siyaare bu baax Cheikh Amadou taxaa di ko ndokkeel di jaarale ndokkeel bi ñu ndokkeel mboolem jullit yëpp ci ci moom ngir mu egg ci mboolem fu jullit nekk mën a ci réew mi ndax lu waaye di def ci lu baax wala ci jullite wala diine wala taalib boo ko jaaree si Muntaxa dana egg fa mu war a egg yàlla na ko yàlla yàggal tuwéral ko ba li ci lislaam mu ko baaxoo suñu mbokki bi yi nga xam ne yàlla suñu borom moo ñu boole ñu bokk pas-pas bokk dund Serigne tubaa ci ñu gëm ne kenn ku ci nekk ci métti ma ngay yëngoo ca nga war a mën a liggéey Serigne tubaa ñoo nag yàlla suñu borom dogal ñu yëngatu ci wàllu wér-gi-yaram waaye nag seenu lëkkaloog daayira Muxaddamatul Xidma ak jumaay Touba doon lëkkaloo bu rafet bu yaatu bu jot bu ànd ak pas-pas ak pastéef yàlla dogal tey ñu ñëwoon fii ndog see fi ngir ànd ak bi ni baaxoo woon nañoo ànd ak ñoom ci ay jataay yu ñu daa def ci consultation yoo xam dañ ko daa def ci jataay bi yàlla doog a ren defaguñu ko ngir bëgg nag ba ñu ware waaye nag teewul nag ñoom seen diggante daayira bi tey ñu tànn délégation bu fi ñëw teewal fi ñi nga xam ne ñoo daa ñëw ci consultation bi di fi ndoge waaye nag yokku dara ci bu yi jàllee ba ñu def consultation bi su boobaa képp koo xam daanañu ànd ak yow consultation bi incha allah danañ fa séene na nga ci daa taxawee nga taxaw ko ci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 maanaam di faral di def ay yëngu-yëngu médical ci wàllu euh, jumaa ji di ci ànd ak sunu naataango yi nga xam ni ñooy waa Muxaddamatul Xidma nekk fii ci jumaa ji te yor lépp li nga xam ni mooy liggéeyu jumaa ji euh, di leen santaat ci invitation bii ñu invité ñu ñu ñëwaat tey fii ci ndogu yi ndax yàgg na noo ànd ci lu jëm ci jumaa ji ak lu jëm ci murit ji ngir liggéey ci wàllum santé ak ci infirmerie bi nga xam ni moo nekk fii ci biir jumaa ji nga xam ni màggal ak xew-xew diine bu am fii nañ koy defee ànd ceeg ñoom yor lu jëm ci wàllu sante bi ba pare it ñoom ñu yor jëm ci lépp lu jëm ci wàllu li nekk ci biir jumaa ji ci liggéey bi sant nañ tey bu baax ci maanaam taxawaay bi taxaw donte ñëwuñu fi ren defagum couverture médicale bi nga xam ni sunu jëwriñ sunu mag sëñ Abdoulaye Faye moo ko jiite di ci ànd ak waa jumaa ji mu xaddi xaddimatul xidma te at mu jot mu ko di def ren ak daaw Covid bi tax ba ñu xaw ko tegandi ci ngir waajal ko waajal wu gën a am solo ñu ngi koy ñu ngi leen ciy sant bu baax ci woo gi ñu woo e, ci ndog yi nga xam ne mooy xew ci jumaa ji ngir ñu xam liggéey bi ngir taafoo bi gën a ànd ngir it booloo bi gën a gën a yaatu sant nañ leen bu baax gis nañ seen taxawaay te danoo fas yéene rek. soññ na nu ndax li ab soññ la ñu gën a mën a laxasaayu gën a mën a taxaw ngir lépp loo xam ni jumaa ji soxla na ko yoon wi soxla na ko ñu mën cee taxaw ngir santé bi waaye ngir li nga xam ni moo jëm ci bépp liggéey boo xam ne ñun mënees nañ cee def sunu loxo lii nag ak ak jagle la waaw ndax nees mën na koo bëgg te du ko te ko am waaye dañ leen di sant ba nu sëriñ bi booleek ñoom te it ñu yaatal ñu lépp ba mën a liggéey bi ba mën koo jëmale fi ñu bëgg yàlla na ko sëriñ bi def yàlla na leen suñu borom euh, yàggal seenu taxawaay di ñaanal suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo ñu jiite liggéey bi yàlla nañ fi yàgg loolu te wér te yàgg ñoo jiite ñun ñii nga xam ne ñoo di ndaw fi nu bëgg a jaarale yàlla nañ fa mën a jaar ba ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko euh, as euh, ñu ngi natt ñëpp di sant ñëpp di yemale foofu kàddu yi di leen sant di leen gërëm. jërëjëf docteur Alla kàddu yi rafet na jot na ñu ngi lay sant bu baax di sant Sëñ Abdou Lahad Faye ak mboolem personnel bi mu àndal di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu pharmacien yi ak ci docteur yi li dala ko ci docteur Ndeye Ndeye Maguette médecin district wàcc ba ci kenn ku ci nekk poste ba nga yore ak liggéey bu rëy ba nga cee def ci di ko ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di teg sant la ngërëm ni ci loxol sunu mbokk yi sunu xarit yi sunu yi nga xam ne dem nañ ba doon nit ñoo xam ne yàlla suñu borom boole nañ ci yu bëree bëri ci bokk dund sëñ bi ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm di leen ñaan yàlla suñu borom may leen réussir may leen ndam may leen xéewal seen liggéey man leen avancement bu rëy rëy ci bàkk sew Xadim ñu ngi sant góor ñi ñu ngi sant jigéen ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh